ñu ngi leen di nuyu rek fi ñu leen daan nuyoo du ci Dakar Midi point net ak ci waa Wasaare dellu siwaat ak yéen ci beneen tomb ci seen émission shukran bi fadilati cheikhina wa fadilatina cheikh alxasan seen ayadahu llahu wa nasrahu yàlla na ko yàlla jàppale te gunge ko ci mission bi muy dox jàppale képp koo xam ne it yaa ngi ci gannaawam di ko jàppale ci liggéey bi muy liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm mbokk yi nga xam ne it ñu ngi topp suñu jataay fu ñu toll tey nag ñu ñëw ak yéen ci seen burdatul burdatul madix nga xam ne muhammadul busayri radiallahu anhu moo ko wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nose ko ci ay wey bu mu jub jagleel ko sallallahu alayhi wa sallam te ku nekk xam na ni ñu ngi ci weeru gàmm muy weeru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam burdu nag di téere boo xam ne ëmb na njariñ yu bari ndax suñu mag ñu baax ñi daana ñu ko jël di ko nose ak ay aayay alquraaniyat di ci faj wala di ci def yoo xam ne danañu ko barkeeloo ci yonent bi sallallahu alayhi wa ngir rekk dëggalee ko waxi yonent bi ji mu waxoon ne tawassalu bi jaahi fa inna jaahi inda allahi burdu nag di téere bu yéeme boo xam ne yi ci làqu dafa bari ndax wax nañu ne boroom daf ko bind nekk ci tawat keroog bi mu koy bind nekk ci tawat bi mu demee ba yegg ci la gis yonent bi sallallahu alayhi wa mu solal ko manto ca la feebaram dañe moo tax mu jël téere bi tuddee ko burdu mu di téere boo xam ne it wax nañu ne ku ànd ak njàpp lu sell toog ci palaas bu laab jàng ko baada kulli xasidatin nga wax mawlaaya salli wa sallim daiman abadan ala xabibika xayril xalqi kullihimi yàlla mën na dogal inchaa allahu nga gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bokk na ci it li mag ñu wax ci burdu nee nañu képp ku ko mokkal waliyu nga ndax dafa jafeñ a mokkal burdu daal ci gàttal mbokk yi ëmb na njariñ lu baree baree bare boroom nag way ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam woo xam ne tëbul rek dal ca ndax arab yi dañ koy faral di def li ñu naan xazal soxla dara war caa jublu doo tëb tëb dal ci danga koy mbeegaanu ba ba nga cay àgg moo tax mu nose téere bi noonu ubbee ko it nag sant yàlla ne alhamdulillahi munsil xalqi min adami summa salaatu ala almuxtaari fi lqidami maa ngi sant yàlla mi nga xam ne moo nose nosam bu jekk boobu ba sàkk ci mbindeef yi nga xam ne indi leen ci lu amul woon te dañu wax ne ku sàkk lu amul rekk ñu wutal la tur waaye yàlla moom subhaanahu wa taala moom moo fekk li amul dara du dara mu fexe ba dara di dara mu ne maa ngi julli ci yonent bi nga xam ne yàllaa ko tànnal boppam yamul ci tànn gi daf ko tànn ba noppi jiital ko mu tëb dugg ci way wi nag ne amin tadakkuri jiraanin bi di salamin ma dajta dam an jaraamin muxlatin ndax fàttaliku ay dëkkaale dëkkaloon ci réew mu ñuy wax zi salam nga séqoon ak ñoom jàmm ju yaatu wala nga séqoon ak ñoom teraanga ju rëy xëy xëy abandonné leen wala ñoom ñu abandonné la wéetaay boobu ngay xalaat ak ñàkk saafonte googu war a doxati sa diggante ak ñoom mu ne ko ndax moom ngay xalaat ba mu tax laa jooy ba sa rongañi ànd ak deret di wàcc kon yooyu jooy metti na am hëbbati riixu min tilqaai kaadimatin wa aw maddal barqu fi dalmaai min idami wala ndax ngelaw li la upp jóge ci boori Kasima Kasima dëkk la mu ne ko ndax ngelaw li la upp jóge foofu wala melxati gi xuuy ci lëndëm gi dafa am lum la fàttali ca dëkk booba moo tax ngay jooy sa jooy yi fama li aynayka in qul takfufu hammata wa ma li xalbika in qul tastaqif yahimi moo yow miy jooy bu seyri sa soppe bi ngay jooy lan moo la dal ba suñu la nee jooy yi doy na sa xol bi gën a dottiwaat ay rongañ parce que rongañ mbell la moo xam ne ñaar rek ko koy génne mooy kontante wala am naqar ñaar yooyu rek mooy sotti rongañ ndax mbell la moo xam ne fa mu nekk dafa xóot te yàlla daf ko mooñaale xorom wama li xalbika in xul tastaqif yahimi lu ne ci sa xol bi ba saaboo dëfalee sa bopp bu ñu la dëfalee ba ne la dalal rek bu sa rongañ yi di tuuru daf lay bett sa bët yaa ngi bënn di jooy ba ngay sotti rongañ mu ne ko sabu sab bu ayaxsabu sabbu anna alxubba munkatimun maa bayna munsajimin min huwa muttarimi moo ndax ndaw dafa yaakaar wala as cam dafa yaakaar ne mbëggeel ma nees na ko nëbb déedéet mbëggeel kenn mënu ko nëbb da faral di dégg sax nit ñi di ko faral di léeb ne mbëggeel capitaine u la mais mbëggeel du capitaine raw na raw na général la mbëggeel ku mu xas dal nee na kenn mënatu ko nëbb léeg-léeg sax mu yóbbee la ay feebar yoo xam ne kenn xamul nu mu toll gis nañu ba tàyyi ko rey ab soppeem ngir mbëggeel gu mu ko bëgg ak fiire gu mu ko fiireek ñeneen mu ne ko lawla al hawa lam turiq daman ala talalin wala ariqta li zikril baani wal anami xanaa xamuloo ni bu dugul woon ak cofeel goo sopp waa dëkk boobu nga sopp ba di leen jooy ak gent boobu nga nga nga sopp ba di bay jooy gent ba yëg naa ne sa rongañ yi doo ko tuur ba di ci fàttaliku waa baan ak waa alam yow sa rongañ yi kon doo ko tuur parce que am na leneen looy fàttaliku doo ko jooy mu wala aratka sawbay abratin wadanan dikra alqiyaami wa dikra saakini alqiyami xanaa xamuloo ne yow sa jooy yi nga jooy da nga dem ba mel ni ku ñu abal mbubbum ràpp mbubb nga sol ko ba mu ràpp ndax ay jooy ak di wonk ba feebar ci fàttali ko ñoo xam ne ñoo dëkke woon gent ya fa kayfa tunkirul xubba baadama shabi baadama shahidat bihi alayka udulu wax wa saqami naka ngay weddee mbëggeel goo xam ne ay rongañ yu bari seede na ko ñu ngi la fekk ngay jooy ki nga bëgg te ku la wax nga ne déedéet jooyuma loolu loolu kenn mënatu ko dégg kon mbëggeel googu cofeel googu nga am ba di ko jooy sab soppe cofeel googu kenn mënatu ko weddi ndax sa rongañ ni muy wàcce ëpp na te jooy nga ba feebar wa asbata al wajdu xattay abratin wa danan misla al bahaari ala xaddayka wal anami mu ne ko dem nga ba sa rongañ yi saxal nga sax saxal nga ñaari rëddi rongañ yoo xam ne njàqaree ko waral danga nga jooy sa soppe bi ba feebar ko onk ku ba binni ko dafa dem sax ba mel ni sa lex yi rongañ yi ni mu ci yolee dafa mel ni fu ñuy jëmbat gàncaxu gàncaxu gàncaxu anam ndax jooy yoo ko jooy léeg-léeg nga fekk place boo xam ne du jamono nawet du dara mais baaxoo na tooy ba day génn ñax moo xam ne doo ko xam sax ci jamono nawet mu mel ni nag dafa siggi xool kiy wax ak moom ne ko na am wax nga dëgg yow daal seet naa ko seet mais dafa mel ni xam nga li man la ko sara tayfu man ahwa faraqani wal xubbu yaataridu ladati alami wax nga dëgg euh, sama soppe bi dafa mel ni dafa rañaan rañaan gi mu rañaan nag moo dem ba gaaral ci sama xol bi aw mitit wu ànd ak cofeel rañaan bu ñu ko waxee mooy ko dem guddi nga sopp nit dem di ko seeti bëccëg nga egsi ñu ne la xëy na mën ngaa topp ay tànkam nga sopp nit di ko seeti egsi ñu ne la gontu na mën nga topp ay tànkam waaye nga sopp nit di ko seeti ñëw ñu ne la rañaan ci guddi gi mbokk yi guddi neexut a topp ay tànk looloo ko tax a jooy ba tax a fanaana wor jojju jaarul sax ci nelaw ngir xalaat ki mu sopp mu ni yàlla imi fil hawa yow mi may yedd ci cofeel gi ma am udri madiratan min nii law an safta lam tarumi man de gàntal naa la ngànt loo xam ne giir udru ga seen ngànt loola nga xam ne kuñ mos a wax déet kenn mënatu leen cee delloosi nit ñu dëgëroon bopp lañu mu ne ngàntal naa la seen ngànt loola boo settantaloon li nga may wax natt sa bopp ci sama place mu ne dooma yedd mukk kon cofeel gi mu sopp rëy na mu ne ko addat ka haali laa sirri bi mustatirin anil wusaati wala daa bi munxasimi yow daal seet naa ko seet mais sama affaire jéggi na la tuuti nga ci wax ci ak man ndax man sama jàngoro ji ma dal muy cofeel du jàngoro ju ñaas joo xam ne bu wéree dalay bàyyee cicatrice du jàngoro joo xam ne dafa lay feebarloo ba boo jaj boo jógee dootoo fa jaari wér anil wusaati ci rambaaj yi wala daa ita sama sama sama garab bi mun xasimin du du sama jàngoro du jàngoro ju ñaas ma xattani nusxa lakin lastu asmuuhu inna alxubba an aluddaali fi samami mu ne ko yaa ngi may gaaralal foo toll ak laaye biir mais dafa mel ni malheureusement man dégguma la parce que ki ma sopp bousculé na sama nopp bousculé na sama xol daanaka dara dara mënatuma ko dégg lu dul moom ndax yëguloo ni mbëggeel daal ki xas bëgg boo toogee di ko yedd ca ka mu bëgg dafay mel ni ku tëx mu ngi mel ni rek boo toogoon ci sunu soppe ba Cheikh Alsane Sène di ko yedd ci cofeelam ci yonent bi du la déglu dina la xool ngay ŋaaŋ ak a ñeppi di ubbi sa gémmiñ gi ak di ko tëj mais li ngay wax du ko xam loolu la ñuy wax dégg ak déglu mu ne inni taxamtu nasiha bi fi adalin wa saybu bu fi nasi fi nusi ani tuhami mu ne man daal yaa may gaaral ak laaye biir goo xam ni danga ma koy waar ci dem gi ma dem sopp mbir ba dem ba bejjaaw ca dañuy wax mag lu mu bëgg ba bejjaaw ca loolu dëgg la ci moom mu ne man jox naa la ngànt loo xam ni xanaa xamuloo ne bejjaaw mu gën a sori fuuf ci waar nit ci jox ko tuuma bala ngaa tuumaal nit ki la mu nekk seet ndax dëgg la wala du dëgg bala nga ko tuumaal ba noppi léegoo léeg nit nekk ci dara ba xëy màggat ca nga bëgg ko ca génn mu indi difficulté bu xaw a doy waar fekk na tàmm ga mu ko tàmm rekk la te tàmm gi nag yàlla na yonent kese sallallahu alayhi wa sallam loolu mooy suñu premier bunt ci burdatul madiex di leen ñaanal xéewal ak jàmm yàlla na ko yàlla dotti ci réewum Sénégal yal nañu fi yàlla dàqal jàngoro ji ba mu jógee fi indilaat ñu tawféex ak taysiir ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, bu ko defee ñu ñëwaat ak yéen ci suñu deuxième bunt incha allahu taala ba suba ak jàmm incha allahu taala jërë ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu